waaye li mu def rek la mën a def. dafa mës a far boobu mhm. ah bon Diomaye <laughs> dafa mës a ah mais noté nañ depuis les élections toute une neutralité ci élection yi loolu. lañ gis neutralité amu mhm. parce que dafa fois mhm. wax li nga xam ne moo nekk ci moom mu ne. wax li nga xam ne kilifa moom lay wax président moom lay wax. mu ne ben benn coow. bëggul xeex bëggul xuloo nañu dem ci jàmm. mbërëj avant ma préparé. l'honorable député le déshonorable ah député Abass Fall mhm. taxaw génneelu ay jaase mhm. génneelu ay paaka mhm. génneelu lu ne dégguñu seen président bi pipi ci moo xam nga ko nawloo wuñ ko faale wuñ ko de faale wuñu joomaay nawloo wuñ ko yow yaa nawloo joomaay parce que yow institution bi nga xool ñom nawloo wuñu joomaay nawloo wuñu institution bi parce que dañoo yag toroxal institution faale wuñ ko déggaluñ ko est-ce que dégg nga joomaay wax wala seen autorité yi jóg hmm. ñu dem siège u taxawu lakk ba mu jeex lakk ay milliards lakk kër ba kër neen doon dóom hmm. visage découvert nag laqatu ñu nëbbantu ñu di sànni seen cocktail molotov xanaa kon cocktail molotov moom xam nañ fu mu bokk ak fu mu juddoo ak fu mu sosoo hmm. di sànni ba ay caabi otoog lu ne de sa ay carte d'identité xanaa kon bu waa ji waree jàpp moom am na lu mu jàpp procureur bi waaye déggoo joomaay ñaaw lu ko la wax ci de waa léegi Ousmane Sonko génn ta traité Diomaye de faiblard <laughs> c'est grave. waaw l'État failli. traité Diomaye de faiblard traité gouvernement d'incompétent. Mhm. waa léegi faiblard bu amee kan mooy faiblard. Mhm. Diomaye. gouvernement bi suñu incompétent xana mom dafa faut démissionné ba mu xëyee moom Ousmane Sonko. bu ko mhm. jom bo jomay amul fulay dakh ko. mom mhm. mu am ngor démissioner étant donné le chef du gouvernement. en tant que le chef du gouvernement. Mhm. même si tu tu faisais la campagne en tant que président Pastef. mais tu es le chef de gouvernement il faut qu'on soit sérieux. qu'on fasse la part des choses que président président président ou le président lit. mais soyons sérieux quand même. soyons sérieux quand il y a de l'incompétence dans un gouvernement kàcce kaw lañ fay dindi yi jotona a am yi yëpp ci biir gouvernement Ousmane Sonko Ousmane Sonko mo warona a am dignité ak jom Mais may mun a kéro bam taxawé né ya ne tay ci Abbas yaa tay mhm. soko léké ya tay dafa warona a démissionné si on était dans un gouvernement normal on est dans un Sénégal normal mais on n'est pas dans un gouvernement normal mhm. parce que bu ñak respecté ce président amérique rek ñàkk nawloo ce président amee rek ngeen koy saaga diko xass diko traiter de tous les noms diko ko mhm. ba international bi xeeb ñu ñun on n'est pas dans un gouvernement mhm. normal mhm. dafa am lu ma a nag mhm. ne ma ne Ousmane Sonko mu ak ñi avertir bien vrai joomaay ci ñoom la mais institution am président jox ko institution parce que ñoom bi ñu institution <laughs> coog Macky Sall lañ commencé ba tey wala bien avant Macky Sall mhm. mais ñun kiñ fi nekkal dañ ko wara jox ci du la personne de Diomaye ça nous intéresse pas mhm. mais le fait que le titre du président président de la République hein. ma ne fa ils auront l'opposition devant eux mhm. ce ce ce passif là ah bon ah si ils auront ces dans ces 54 là les gens qui ont voté pour Diomaye là dans les 54 ils cent bu xaj les là le reste sera avec l'opposition. Cette masse silencieuse-là sera avec l'opposition. Mm Il mhm. fera passe face à eux. Mhm. Même si vous Ousmane Sonko, moi, yalla, moi, fait que Diomaye. Parce qu'il y a une institution qui est jox cëram. Mais mënuñu am Ousmane Sonko opposant muy saga institution. Ousmane Sonko au pouvoir ak ñi andal continuer de maltraiter euh, institution. Mhm. Vous connaissez neexee ne bu wéeteeg joomaay na été màtt na ko saaga la mais ñun devant ñun respect bi dafay teew mhm. dañ leen imposer mhm. aussi mhm. à chaque fois li may il faut qu'ils siffle la fin de la récréation récréation c'est an bi dafa guerre. état lañ ko jox dix 18 millions de sénégalais lañ jox joomaay ma bañ ko ma bëgg ko bien vrai que j'ai un problème avec sa candidature comment il a pu être candidat Étant en prison, il est devenu candidat jusqu'à être le président de la République. Mhm. su ñu génnee na ci yëfi institution yëfi Aduna, Ousmane Sonko na gëm Yalla, président Yalla koy roof ci nit te bu joomaay taxawee nga xam ne yàlla na ci moom président. te bés ba mu lay def président bu bësatee mu roof ci yow ki jëmmi jëmmi président. Mhm. xoolal joomaay bu njëkk ba ak joomaayu tey bi. am na différence xam nga dem demul ñu defar kanam gi. kenn kii ko ni ñu koy waxee opération yi ñuy def kenn chirurgie wu ko mu leer la la chirurgie yàlla moo dugg ci moom <laughs> yàlla yàlla ko chirurgie boppam chirurgie bu yàlla <laughs> ah kon <laughs> uh-huh. Ousmane nan nangu te gëm mm-hmm.

ah waaw léegi lañu doon wax ci diggante ma jambal Diagne